traitement bi day maanaam bu fekkee ne jamono bi nga xam ne du jamono koor ci lañ gën a am boo xam ne ci lañ ci lañ gën a mën am prix daal jamono koor gi bu dee fii ci Touba moom tànn ma du fi seer ñu bari nag fi mu ne ci Touba moom bàyyiwuñ xel ci loolu mais jamono koor tànn ma du seer Touba ndax tànn ma ji ni mu fi wàccee dafay bari dañ koy jaayee ay 1300 ba 1200 mais su fekkee ne jamono boo xam ne nekkul koor la dañ koy jaay kilo 2000 francs 2800 ba 1800 lañ koy jaayee. nekk prix bi di gën a aju moom bu doon nekkul koor ci Touba laa wax de bu nekkul koor ci la prix bi di gën a aju man noor ak nawet guddeeg bëccëg loolu loor mooy sama liggéey. man de koo de xëy na sax maanaam dina tane ndax maanaam dana gaaw dana gaaw ndax daanaka euh, boo jaayee ay 1300 wala 1200 xëy jaay ay 5 cartons wala 10 cartons dana tane. tànn moom amul ren moom ndax waaw bi muy doog ñëw moom la gën lu muy a ñëw moom la gën na moom doon na jar fi ay sept sept mille cinq cent yooyu mais dañoo dem ba mu yàgg mu manqué nag moom ñu ngi koy jaayee neuf lañ ko doon jaay neuf mille lañ koy jaayee ndax daa demoon ba mu yàgg mu manqué nag ñu koy jaayee neuf mille francs waaw métti na moom métti na lool sax. tànn dafa am bu wow am bu tooy waaw tooy bi moom xam naa eh, ñu ngi lay jógee ay siin lay lay jógee moom waaw du kii ñoo koy indi conteneur yi ñoom ñoo ko indi. waaw bu koor ba koor lay ñëw nag bu tooy bi koor ba koor lay ñëw waaw bu woo bi moom moom tout le temps mi ngi fi moom bu woo moom chaque jour mi ngi fi bi moom chaque chaque weer rek lay ñëw moom chaque ko weeru koor boo ko weeru koor rek lay ñëw bu tooy bi moo gën a yomb nag moom mais bu woo moo gën a seer moom waaw. koor gi de comme carton am na carton 10 kilos yi am na sachet yi nga xam ne bii de moo nekk ci tablette yu weex yi. bii moo mooy moo nekk moo nekk ci carton 10 kilos yi. waaw bii moo nekk ci tablette yi waaw bii de moo gën a seer te bii nii fi ne nii dañ koy jaay par genn waa liibar yi dañ koy jaay téeméer liibar bi 1000 francs kilo bi 2000 bii nii moom seer na moom ci taal ma seer ci la bokk moom itam moom dañ koy jaay 2000 moom itam waaw moom moom la ñuy ëpp lu ñuy jaay budul koor moom laa lay wax nii ne moom tout le temps dañ koy jaay moom dañ koy jaay ay 2000 francs ay 1800 moom loolu moo gën a yomb ci prix moom. ah mbokk yi de xanaa ñu jàpp ci rek maanaam xam ne fii daal moom comme ni ko nit ñu di waxee rek dëkk suñ Tuubaa la dëkk suñ Tuubaa nag moom xéewal la fi am ak yërmande moo waral loolu yëpp waaw tax na wax naa ne la. période koor moom tànn mënu fee seet ndax ni mu fi wàccee dafay bari waaw. waaw bu dul koor bu dee koor nag li ñu gën a gis suñu bopp si tàndafa ji waaw ndax lay gën a gaaw moom waaw bu tooy bi mooy ñëw bu tooy mooy gën a moom mooy gën a yomb ndax kilo bi moom ay 1000 francs gën a yomb mooy bu bi moom ñett téeméer lay jar par kilo. de moom bu dee bu dee koor sax lay gën a wàññeeku ndax bee bu tooy bi day ñëw daaneel bu wow bi. waaw ndax maam bi bu day ñëw bu wow bi sax bu dul koor ñeent téeméer lay jar mais bu du fekkee koor moom ñi ngi koy jaay ñett téeméer ba ñuy maase di jaay ba 1000 francs bi ñett téeméer bi 1000 francs lañ koy jaay waaw